nga xamante ni ñi mbapat ak ñi mbapatul chaque jour seen kii kon seen lacune dina feeñ ci li nga xamante ne moom mooy seen i combat wala euh, xam nga yàlla dafa def euh, am na ñoo xam ne ñu ngi nañu te ñu ngi bëri arène mais da ngay dégg diw moo gën a mbapat diw te kii fu mu toll toll fa woon dafa ñoo xam dañoo mun mbapat am ñoo xam dañoo mun bëri dóor am na ñoo xam ne yàlla may na nañ ci ñaari fàcc yëpp mais nag fit ak fulla ak fayda rek koy may maye gannaaw ndimbalu yàlla suñu borom ndax fi yàlla rek a fi nekk. sa ban mbapat moo la gën a marqué sa mbapat boo xam te ne doo ko fàtte ba tey nii. waaw mais bu ñu tojee sama bopp. <laughs> boobu yaakaar naa non si kañ la dëkkoon mi Alioune Diouf la woon. boobu ñu ma daan ko après gars yi ñu xeer sama baab dafa mën a tere bëri bi ñu toj suñu bopp xam nga am fa ay ñoom commissaire Mbaye Zospa Moodu xam nga ñoom peebar ñu ñëpp boobu xam nga la dafa neexoon foofu koñ ba xam nga benn instant sama papa na ma li daal wax làmb moom boo ko bëreetee moom ma xam ni juratuma la mais après xam nga rek nit boo xamee jikkoon xam foo koy jaar mun nga naxtaana moom ba ab ga nga bëgg ma jaar fi ma war a jaar ak moom rek négocier benn jour ci laa dem bëri gëm andi benn affaire andi ko teg ko ci kanamam xam nga mu xool xool xool xam ni tamit réew neexul mënatul lijjanti mënatul dem sàkku lu mu daan sàkku ndax tamit nit am na fooy toll lépp dala yomb mais am na fooy toll nag mooy mi ngi fi. Mm, waaw boobu mi ngi bëree ren mi ngi bëree ren. te nag du caaga ni da ngay am sa mag muy defal sa waajur yaa nga toog déedéet man gëwuma loolu man damay wuti moom muy wuti kenn ku ci nekk ñoo bokk suñu nday yi kenn ku ci nekk war nga di jëm a xool nooy bégalee sa waajur ba mu ci yow foofu la àdduna toll. Salif lutte avec frappe nga dugg ci ban année. def naa 2008 yooyu ah. ci premier combat euh, Balla Gaye Eumeu Sène bi deux semaines laa ci teg bari non non non man dama bëri woon Mbapat tournoi Pikine ma finaalu ñu yàq Pikine ñu yàq kii bi ma finaalu ak saa fànn boobu dafa naa Mbapat moom bëri naa pare. léegi gars yi Jules Bale sax jour boobu moo ma woo ma ñëw mënu ma arrêté bëri bi ndax wóoru ma mën a ko noonoo man damay bëri ndax mënu bari bëri jeudi vendredi ba samedi ñu yàq sam ñu dañ di ma bëri te du ko def après yàlla def euh, sëñ Modou Niang dégg sama tur. woo ma na ma bu bul bul bàyyi bëri bi dinaa la jox combat la des que ay vingt et un moo desoon ci combat bi ma ne ko baax na après ñu séddale ñu suñu ko suñu kii waa li ñu fa jël mi nag bi dañ koo jaay kenn ku ci nekk am sa moitié waa après ci laa dem ka sëñ Mourou mu jox ma sa lapit dew euh, sono kii sa sa fandu waaw apare sa combat bi ñu rapporté ko parce que boobu moom daa blessé si ma doxaat euh, la Pythagore après moom it ci la blessé waat ci la ci lañ ma doog a jox Boy Diouf mais combat boobu moom mun naa ne moo gën a métti sama combat parce que dañoo ñëw ba Gambie waa ji war a jubal jël yoonu Casamance bi dem jël beneen gin beneen koom beneen yoon bi ñu ne fa nag parce que fii ñu fi départ deux heures euh, boo xoolee onze heures fekk na ñu ngi àgg biir Gambie ba war a dugg continuer moom mu jàdd dem jël kii Guinée Conakry Guinée Conakry bi. presque daw nañu ba ay euh, ba ay deux heures trois heures. di daw rek te boobu ñu ngi dem de. boobu ñun ñun mbër yëpp ñu ngi war ñu ci biir bis bi bis ñaari bis la woon dafa am bu jiitu parce que adversaire war waruñu woon bokk bis waruñu woon bokk mais su boobu dafa am ay mbër yu retard sama adversaire ci la bokkoon moom it mu mu retard ñu bokk bis mais après boo xoolee ñi ngi dawaat minuit lañ agsi bii foofu noonu ci biir Casamance parce que waa jam na wenesan laajte na dina ko yoon mi nga jël baaxul du yoon bii. booy retourner bu muy retourner rek di dem ba ñibbi ba àgg Ziguinchor boobu zéro heure jot na suñu tànk yi ñun mbër yéeg ñu toogoon dugub dugub bis yëpp suñu tànk yi dafa neewi ndax toogaay ak yàgg day sàdd si tànk yi après ci laa mu li obligé sama waa kër yaay jël si ma ma ma demee ma lekk sangu tëdd xam parce que boobu tamit métti woon na am na ñoo xam ne ñoo nañ fa amuñu fa mbok <clears throat> da ngay mujj obligé jël ñenn ñi xam nga képp ku fa nekk mbër am fay mbokk di nga jël kenn yóbbu wala ñaar. loolu lañ dañ jàppalante suñu biir kon moo lay wane ñun duñu noon duñ dara. Mm, ñoo fay quatre-vingt mille. waaw ah, bëri. Mm. ci def. non dara sama yaay laa ko jox sam baab sama yaay dama jox sa baab ma jox sama baab sama baab na yaay ñu may awante mm. ma jox xaay sànni leen ko <coughs> sama baab woo ma ñëw. li mu ci jël motul dara ndax boole na ma ak ay nit yoo xam ne sax dañ ma gën a jàppale ci loolu boobu boo xoolee am na sëriñ ñoo xam maa ngi di fay huit mille ay dix mille fay naa sax ci combat bu sëriñ quatre mille mais ñooñu yàlla moo def dañ ma jàppale ñoom sëñ Moustapha yàlla yi ñoom ñoo ma dañ jàppale ci côté yooyu ak ñeneen ñoo xamante ni tey ñenn ñaa ngi dund ñenn ñi yàlla yàlla yërëm te xaare la ma jóg di ko ñaan yàlla xaare ko àjjana boobu lañ nekkoon di xuus di tàkkale mais comme premier combat du laaj yenn sëriñ ci sa ci sa entraînement rek nga koy sukkandiku te ki ma doon bëral nag euh, gisuma ko woon jour combat bi laa ko gis moo ma gudd moom ma moo ma guy moo ma filaaw mais après yàlla def li muy def maam ci ndam parce que jour am na ñaari chute yu fa nekk dafa maa njëkk song ma mbot ko bi samp mais arbitre bi na ma leerul nañ ñëw bëriwaat ci laa ñëw xàcc dóor mu song ma ci laa ko busul fàq ko bàyyi ci suuf waaw. ma am ci ndam. sa deuxième combat yaakaar la woon. dafa naa ma Bomba Dieng si la woon. maa mbëru <laughs> parce que xaw ma ko. en plus euh, ma am ku ma laaj mënu ma naka rek kooku itam dafa complot ak samay nit. ma ñëw na ko da am naa combat ma Bomba Dieng junior moo tax nga jël ma ne ko wax xanaa du mbër benn grand moo ko njëkk a wax. Ah. ma ah. daanu de bëri na 27 combats ma ne ko 27 combats mënuma waaw mënuma yow yaa ngi ci ñaari komba ma ne ko benn combat. man moo waroo koon jël man ko dinaa ko jël de jël naa ko pare dina entraîné nag ñoom waxuñu ko ngir tiital ma ci benn côté mais dañ ko dañ ma ko wax ngir ma yokk sama entraînement pour ma gën a fonk làmb jooju loolu moo tax ñu waxee ko su ma demaatee ci kii mu wax ma même chose li ma kii wax ay kaawoo yëkkati loolu rek lay daanee nit ma ne nag man nag maa fexe ba jël xaaral ma mujj bi damay obligé di dem quatre heures du matin man Mbaye Sospa Modou Gora Giri ay Mbaye Guèye junior ñoom ñu falaan daan fekkante xam nga boobu ñu ngi ànd ak per Badou suñ jógee foofu Pape Cargo mii ñu nekk Italie moo ma daa yóbbu saal parce que wéññeeg laa bañ mais lu ma yóbbu saal yëpp man ay tànk rek laay entraîné ma ñibbisee sama néeg su ma toogee xalaat li waa ji wax rek ma jug toogaat ci kaw di di entraîné sama bopp ci biir néeg bi gis nga 4 heures dama fekkaat ci biir école bi mais yàlla def ba jour bi ma xoo ko après. mooy loolu boobu Bébé Saloum ak Garga Mbossé ñoo doon bëri grand combat bi Rose moom man moom moo doon bëri waa benn spécial bi. Bébé ñoo doon bëri grand combat bi am na lu muy jur après. am na euh, a bëreel moom moo waroon bëri euh, Rack Rose man ci laay doog a bëri Bombardier ci la Raglos daan saf euh, Safandu ma daan Bamba Dieng junior Bébé Saloum ci la doogay daan euh, kii bi euh, kii Garga après ah, daan ko. dem ñibbi dem seet leneen après def naa ci la bëreeg kii waay wulli <laughs> gars yi mais sa wulli Sa daf la taal de. waaw daf ma taal. mais nag jëluma ko ci diir bu am ma li ma ko jëmatu sax bu ma te 15 jours ci layam parce que dama feebaroon Gaston woo woo sama papa waxtaan ak moom sama papa woo ma wax ma ko ma ko feebar mais baal naa ko jël baaw na ma wóoru ma ne ko dinaa ko jël de parce que boobu situation moo métti woon ndax euh, li ñu war a am li ñu bëgg a am amaguñ ko te dañuy sabablu pour suñuy waajur yi loolu moo taxoon ma jël ko. waaw mu nekk combat bu neex boo xamante ni parce que nag bis biñ ko bëree bis boobu moo màgg ndax Gris Bordeaux ba mba Yékini moo doon bëri grand combat boo xoolee fëgg la defe naa sa bëri na ci spécial boobu nag laay toog Gris Bordeaux simmeeku xam nga Yékini simmeeku fii sama xel naa ma yow may na sama xel ma kañ laay toll nit ñi kañ laay mel nit ñi affaire yooyu xam nga ma dem toogaat. xam nga avant maa bëri sama xel loolu la ñuy jox. nan lay def àgg fi ñoom fi ñu àgg. nan lay def ba ñoom ñu mel ni ñu mel ma mel ko li ñu am ma am ko. aba sam benn xel xam nga xel moom day bëri moom sa bopp xel mi naan liggéeyal li nga ma sa am ndax ñoom ñëpp fii lañ jaar ci yow ma gëm ko loolu ma bëri daan ci la ñoom ñëpp bëri combat bi jeex ma ñibbisi après ci laay doogay dugg sama grand combat non Kouda booy. <laughs> non mais sa grand combat nga doon dugg parce que gis nañ si combat ak wuli coow li bari woon na kii rakku Balla Gaye la nangam ñu bari sax xamuñu woon Sa mais dañ ko doon supporter ndax rakku Balla Gaye la rakku la Sa nga bëreeg wuli après jël kan. waaw sama ngi ko bëreeg euh, kii euh, ko réel grand combat bi. moom naa mosul am defet uh-huh. boobu am defet nekk rek nekk ci danger jël ku ne nekk daan ko ay Pape Mor Lo ñoom ñëpp parce que boobu xam ñoom Pape ay Pape Mor Lo ñu ay Tidiane Faye ñoom ñoo fi nekkoon. nekkoon au mais moom kenn du tudd xale te tuddoo tudd xale te ma jël ko man tamit def li ma daan def euh, ba ma njëkkee dem dañ ma wàññiloo sama poids dañ na ma ju diis moo koy daan il faut nga gaaw affaire yooyu waaw mais diiran bi ma ko song noonu mu déclenché deuxième <coughs> deuxième kii. deuxième pied laa def rotation ci kaw air bi man tamit bàyyi ko moom mu dem. nga temps yooyu ñu gis ni Sa Thiès barem bi ñëpp naan amagul defet amagul defet après nga jël ay ñoom nga bëreek ay ñoom def naa Boy Sey. ah boo <coughs> koy bëri <coughs> Boy am naa neuf combats sama dixième combat lañ ma doog a daal. Euh, mu nekkoon neuvième Zono sama neveu ko baax Moussa Dioum la. Moussa Dioum mais sa combat ak Zarko boobu ba léegi dafa marqué gars yi boobu gars yi sax dañu doon wax kon combat Balla Gaye la woon ak Modou Lo ñu gis ni ñaari mbër yi ni ñu meloon Sa Thiès tamit ñëw jël combat bi combat bi engouement lu bari di ci xew sa combat ak Zarko mën nga see ñëwaat. waaw comme li nga wax la rek du sama du suñu combat maag Zarko combat Modou Lo Balla Gaye la woon noonu la ko nit ñi jëlee woon boog en fait. ndax euh, kenn ku ci ne xam nga ni sa moroom ngay préparé tey bis ba ñooy bëri te xam ma combat la boo xam ne amoon na ambiance am amoon na benn populaire bu ci nekkoon boo xamante ni dafa naa ni ñoom ñaa ñoo ko fa andi ci coow loolu. te man la jàppee ma ko coow ndax waxtaan bu nit di waxtaan moom mu nga déglu mais xam rek am na ñoo xam ne yàlla moo leen nattoo luñ dugg rek day bëri coow xëy na Omar loolu la ko yàlla nattoo xam nga ñu bëri ko ci fulla ak fayda heureusement ba jëli bi moom sànni yu ci rek loolu laa doon gën a sabablu après à un moment donné amoon pression combat bi ñu gis ni ni mu mag gaay yëpp dañoo ñëw seetaan si combat bi am benn engouement boo xamante ni sax yaw yow bi yow miy toog di seetaan sax yaw yow di nekk fan sàcc sax da ngay tiit yow combat boobu noonu après amoo ci woon benn pression. non non amoo ci benn pression parce que en fait peut boobu maa sama dynamique de victoire yoo xamante ni amagu ma woon defet parce que boo xoolee mbër yoo xamante ni mosagul defet mooy gën a am confiance bi nag dama ko doon bàyyi parce que ñu bëri boo xoolee sax ñëw nañu mais ñëwuñu grand combat suñu combat moo ne fàndi woon suñu combat moo ne fàndi woon naa boobu Baye Mandione ak Moussa Dioum ñoo bëri woon grand combat bi mais boo xoolee combat bi ñu bëri ñëw nañu ngir seetaan combat boobu rek duñ sama supporter duñ supporter kenn yeneen mbër lañ mais loolu la moo fàndi mu nekk combat boo xamante ni peut-être jaaraloon na ko jaaraloon na ma boo xoolee lu lu ci ëpp dama ko làkkatu lu ci dama ko làkkatu kenn bëgguma kenn xamal noonu laa préparé suma combat ak samay mbokk ak sumay staff ak ñi nga xam ne ñoo suma kilifa yàlla ma yàlla boole après ci laa bëre moom mu bëgg mu rappel ma ma bëggoon tal loxo bi tànkam laal sa daal di pest sama tànk bi ba xam ni su ma doon annière wóorul ma bàyyi ko mu wóor ma ndomba mais après ba muy jël loxoom pour sentir ma ci laa téye beneen loxoom bi def rotation daal di jël bopp bi bës ko. Sa Thiès duñ wax dëgg yàlla dañuy tànn ay combat rek parce que buñ fi nekkee di décortiquer benn bu nekk benn bu nekk day jël temps mu am tamit sa benn combat boo xamante nii ba mu amee sax fan yii yàggul muy sa combat ak Siteu ñu bari waxoon ni Sa am ñu bari sax ñu ko ci mere Sa Thiès pourquoi mu jël Siteu Sa Thiès moo naa jël adversaire bu dul sa combat ak Siteu pourquoi woon Siteu. non sama papa loolu moo la ci waroon tontu ndax moom moo jëloon combat boobu man bi. en plus bu doon mën ak man ak man rek góob mu dinaa ko bëri mais nag waajur la aussi wax ji dem na ba trop tard ba jëloon na avance jàmbur mais xëy na dafa amoon ñoo xam ne ñoo nekkoon ci ginnaawam rek forcé ko ba mu jël am na loo xam boo ko waxee mag mën ko ko nax loolu dong la mais xëy na sama papa bu doon sagoom dina ma jëlal koo xamante ni moom opportunité fuuf ak moment boobu amoon na keneen ku ñu mën a wax koo xamante ni moom moo ma gën loon te combat boobu moo gën moo gënoon neex daal. waaw mais xëy na après bañ demee France bañ ñëwee ci lañ fekk situation bi am. waaw parce que da génnoon da nga demoon France ñëw ñu ne combat bi taxaw na mais ñu bari nag ñu bari Sa Thiès combat boobu maar day taal mais boo ci daanu woon dina am ñu bari ñu la ci kii ah. waaw du sama combat combat si teel woon boobu rek. Ah, mënul na nekk sama combat parce que man su ma sëggee sacrifier sama bopp dem di bëri ji euh, pour sàmm sama kàddu papa moo taxoon. non non du sax taxaw. boobu moom moment boobu moom booloo ñu woon parce que tamit boo xoolee ñu bëri coow loolu lañ ci nekkoon mais xëy na boo bëriwut ak moom tey di nga bëri ak moom suba te bu la fayee ko jar mën nga jël bëri ko ngir seet leneen du lu ma ko xeeboon non non mais xëy na moment boobu man maa maa bëggul woon bëri ak moom mais nag yàlla moo def dama waroon bëri moom bëri naa moom yàlla may ma ci ndam a laa la jukkum seet dañuy dugg ci li ngeen mooy écurie écurie Double école de lutte Double Less du ñu bari na Sa Thiès ba léegi dafa xeeb écurie bi moom moo tax ndax Sa Thiès am na combat yu bari yoo xam ni dañuy dégg ne jël na ko rek mais du jaar écurie ba lu waral lool. waaw ok moom laa doon wax di ko waxati man dama ne école ba ku ma fa ëppale wul doo ma fa ëppale xam nga ki ki formé defar tabax bokkut ak ku neex mu ñëw du dëgg gis nga doomu aadama yàlla lay def da ngay toll benn période dangay tolloo ak ñoom doole ci si wàllu liggéey day dem benn période da ngay soxla ko ñoo xamante ni yow ñoo sañoo lëpp doole suñ fa nekkulee yaa ko dee wuti xam nga nit ñi dañuy jaawale euh, waa sax dañuy jël seen xelu bopp di wax man su ma amee combat ci biir géew bi maa ko yëg sama intérêt ji ma soxla sama biir làmb man la engagé kon man du xóor maa xool li neex nii ba di ko def li may liggéey ci sama côté wala li ma li may dimbali sama làmb lu ci ëpp nekkul côté boobu am naa fekkul de lit d'accord am naa fa samay nit d'accord mais boo xoolee sama dernier sortie ma bëri yëpp aw ma adversaire boo xamante ni tolloon naa ak ñooñu doole da ngay mujj obligé génn ñoo bëri ay ñoom la daguer ay Balla Gaye ay Elton ay Les ñoom ñoo lay dimbale ci yenn yi léegi man su ma nee topp ñoom li ñu bëgg man ma faible su ma demee foofu lan laa fay fekk loolu tamit. man moo tax man yenn saa mais texul ma bàyyi école ba xëy na nekkoon nañ ci dynamique de coow boo xamante ni du ñàkk ndax école la boo xamante ni amul amul woon amul amul président amuñu ku lay dimbale soo fa jëlee combat yow yaa koy engagé sa bopp boo yi fa nekk ñaata combat lañ fa bëri woon di daanu amuñu ku leen dimbale man du ma fa xaar loolu man dama am ñu may dimbale am na loo xamante ni suma opportunité ci côté bi mu nekk dama fay dem te da ngay benn période boo fa toogee boo fa tolloo doo mën a di nga entraîné ci école bi sax mais dangay ngay xaw a am looy daw ndax day laaj nga làkkatu teewul ñoom Mbaye Guèye junior xam nga lu may ñoom ci sama combat dama ci waxtaan ñoom xëy na peut-être ba réeroo amoon suñu diggante mais trouvé nañ suñu solution ndax waxtaan nañ ñu suñu école ñu ñëpp ba kenn ku ci nekk xam nga li nga war a toogee xam nañ lu yàggul dara laa jóge suñu école. nga neexee na mën naa la woon sama preuve mais nag pour man. du débat du du coow loo xamante ni dox na ba mu métti ko yenn yi parce que lu yàggul dara si yenn booy yee ngi bëri demoon naa école ba demati fa xam nga waaw loolu dong la woon. dañuy kaas loolu dañ naan école ba du ma Less moo ko moom Sa Thiès moom mooy leader bi mais duñ ko gis booy sax ne bu ñu amee combat pour ñu gis la problème la est-ce que tamit jaru comme que yow yaay leader bi macha allah jaru yow nga réunir leen comme ku ci am combat ñoom nga gunge leen mais yow amee combat. xam nga man kon li ngay wax làqatu bi mais comme bàyyi leen ñoom ñu mel ni comme dañuy sentir seur gis ñu bari ay ñoom booy yëmbal ñoom ñëpp nekkatuñu école ba dem na ndax lan. école ba la. war ko bas. non jarul jarul li moom laa ni mooy la mooy li école ba la kenn du ci yorante mais euh, mënuma xool doomu aadama beneen bi wax bëgg-bëggam ba fàtte man li ma war a def. tey euh, lim ma bëggal may ñëw mu may gis ndax bu ma ko bu ma gis moom ndax moom bu ma arbitre sifflé ndax man li ma bëgg naa ko am ndax mi ci bàyyi xel te mi dañoo toll foo xamante ni boo naree topp nit ki ci bëgg-bëggam ba fàtte yow li war yaa ngi tooñ sa bopp te duma ci fekk nag. yàlla xam ne maa ngi école bañ naa ko musuma naa dama am lu ma métti woon. ma xam ni su ma toogee ak yenn wax yi dinaa wax lu ma war wax ma toog jàpp sama ñaam mais trouvé nañu solution ñu ngi toog ñu ngi liggéey ensemble ñëpp benn lañu. Sa Thiès loolu benn parenthèse la parce que tamit école de Double ba léegi nga nekk malgré nag kon li nga wax rek nit di nga toll benn moment boo. sama sama jëmm moo fa jiitu ko turam. loolu la gën <laughs> aussi di profité di jaale waale tamit Fallou Ngom ak sii di Ndiaye. ndax euh, suñuy nit lañu ñu yàgg sonn aussi suñuy làmb euh, di leen koy di leen jaale waa gàmb yëpp di jël euh, jaal gi di ko teg ci suñu fans club yi fa nekk di jaale aussi tamit sëñ Kilaala Fall bu baax mi fi jóge di jaale mboolem jullit moom it xam ni suñu waajur bu baax lañu mais ñaar ñee nag dañ daan soññ suñu làmb di daj lu nekk kon tey bu leen yàlla jëlee mënuñu lu ñaanal leen yàlla xaarale àjjana ci barke Seydina Mohamed waaw li may tàggatoo mooy di santaat yàlla baax di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm yéen waa wasaare comme moom lu fi xew yéen a koy wasaare yàlla na tas ba yéen nga jot seen i fi bopp. abonné naa bu yàgg. Ah. voilà loolu fi dugal maa ngi koy teg. Ah. moo tax yow nga def ci jàmm te def nànk <laughs> waaw beneen bi ci des nag mooy di sant ñi nga xamante ni dañ may jàppale dañ may taxaw di ma soutenir dañuy bëri trop mais ku lim juum su mel ni àndaw Pape ma Moussa Fall xam nga xoolal kii yéen a tax mi woote Jules Souleymane xam nga di si gërëm Sayer sama gars yi ma ànd ñoom commissaire ba dara nga musaa Fall ñoom Adlé noobul di gërëm ñi nga xamante ni comme Omar Bass gërëm euh, euh, kii sax laa wax sëñ Abdou di gërëm ñi nga xamante ni aussi dañuy taxaw bu baax a baax baax a baax am na ñoo xam sax mu ñëw lim tour mais di gërëm monde Sénégal monde entier di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. di gërëm ñu may nekkal di gërëm sama yaay bu baax a baax di gërëm sama papa di gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy jàppale te yàlla rek a tax di gërëm tamit Assane Assane Minter Bala Bala ak Papi Sané di gërëm Jibilo bu baax a baax a baax di gërëm Moussa Fa Meng bu luga di gërëm autorité Guédiawaay yëpp ku ci mel ni Aliou sàll suñu maire bi maali Gakou Néné Tall ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu ngi leen ziar baax leen dool seen wàccuwaay gis nañ taxawaay bi ci liggéey recherche Guédiawaay bi ñu jàpp di ñaan yàlla nag yàlla dafa leen jàmm di nuyu suñu waa école ñëpp ñoom ñëpp ma ngi gërëm di nuyu suñu soxna yi ne ci kër gi di buri awa gërëm tamit Khadija di gërëm suñu njaboot yëpp di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg aussi di ñaan yàlla tamit yàlla delloo ñu waxtaanaat suñu xel ba ñëpp déggoo ci kàddu làmb ji mën a jëm kanam parce tamit ñu ñëpp benn lañu mi CNG bi mi mbër bi mi amateur bi mi promoteur bi ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay rawatina sponsor bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla dafa la jàmm yàgg nga fi nga am jëkkër métti na. waaw ba tey di gërëm sa waa ji pare si gërëm nañ ñëpp ak at noobul bu ñaaw bi ak ceer sama doom day voilà. l'émission tire à sa fin lii lañ leen indiloon Sa mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla nee naa leen mbër mu disponible nekk koo xamante ni su ma ne koo kar rek ne ko Salif mu ne ma ñëwal ma ko ci remercier nag bu baax a baax ndax tamit wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ni daal kon li may waxee nee naa man mbër man aw ma seen fay mais moom tamit aw ma fayam di ko remercier wat bu baax a baax di remercier nag ki nga xamante ni moom mooy sama caméraman bu ñaawul bi eh. muy Basirou lay fatigable naan la yàlla sa jàmm yàgg Sa Thiès kañ ngay ah ah dama waaw di bëgg waat ah ñëpp ñëpp rek comme ni mu ko waxee ay ñoom dafu baala ñoom simel ñoom baala karfat ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ak Badara sama lakkal waaw di ñaanalaat ah suñu papa suñu maam muy papa Double Less di ko ñaanal jàmm naan ko papa wéral muccal yow amal jàmm rek parce que li may wax rek on a besoin de vous waaw waaw waaw. <laughs> malal moo gën a ragal suñu kër. waaw waaw nii la sa Sadji xam nga mbëri moom dañ leen di comprendre Basirou di jaa jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam te ne ñoom ñooy wasaare lamb wasaare TV naan leen merci beaucoup kontaan naa ci accueil bi. te nii rek la ñuy def nii la def champion yi la ñuy seeti képp koo xamante ne yaa ngi seetaan jàppal ñi ngi ñëw te bu ñëwee dañuy dal sa kaw ñëpp ah cat ba cat nee naa wasaare dina am lu bees tàq lu leen indi nii nii rek ci kanam rek Basirou dina ko taal Basirou l' émission tire à sa fin xanaa rek ñu dem beneen champion rek buñ paree dañuy dem seetiwaat beneen champion xaw ma fu ñuy aw gauche wala droite ni lañ defee ak Fatima nee naa dara du yomb borom wasaare kese.